Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. commission culturelle ay suru ramadaan weeru yàlla suru ramadaan weeru ngëne la ndogu la gi waay waay commission culturelle ay seexandaloo suru ramadaan yàlla yàlla suru ramadaan yàlla ndogu laa gi waay waay commission culturelle ay seex andaloo kay leen kay leen ci ndogu laa Assalamualaikum, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am bekté di and ak yeen ci seen YouTube bu Reubeuss TV tay nak ñoo ngi fi ci Rijal Diop ci biir lawa ñëw ci nga xamantane mom la Xandaalu def di ndogu ah, ñu fasiyene and ak yeen dund ak moment bi rek ah, ñu jema xol quelques gars rek laaj leen naka lañu gisé li nga xamantane mom modi ndogu bi assalamualaikum señ bi naka ne sa wa yaay boy ñu ngi fi tur bi naka la man Babacar Sadikh ah, Babacar gis nañ ni ya géré walu café gi waaw deug la kay waa tey noo noo gisee li nga xamante ne moom la waa ASC bi def. waaw mais loolu rafet na xam nga jaamu yàlla moom dafa bëri ay façon surtout bii nii rawatina si joxe na ko daf si raw yaa ngi comprendre donc xandaalu su koy def kon loolu ñun ñun ñëpp dañ koy saluer lu rafet la. noonu la demee yal na leen yàlla defaral tawféex yàlla lépp luñ si soxla nag yal na leen ko yàlla may quoi bu soobee yàlla. Eh, merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal yow ñoo far yow loolu dara. na nga def tur bi naka la. Diarra Boussa Ndiir. maam Diarra ñu ngi la gis yaay gérer li nga xam ne mooy wàllu mburu mi. waaw gis nga chaque année rek moom la ñuy def di ko ñaan yàlla di ko fekkee di ko fekke waat chaque année ñu ciy barkeelu nii rek ñu ñaan yàlla affaire bi jëm ci kaw ci kanam ci lu baax rek. soxna si maa ngi fii. ñu ngi bi naka la. maa ngi dolli ziar tur bi Bintu la sant Dramé. bint Dramé dañ la gis tey nga mel ni nga bokk ci organisation bi. waaw organisation bi dafa nekk sama gox nekk sama quartier moo tax ma bokk si. waaw ñun nag gis nañu tey euh, jeune fille bari nañ fi lool macha allah di li nga xamante ne mooy ndogu bi. waaw ndogu bi noonu la nag ñun dañoo nekk rëbës dañ ne doomu rëbës rëbës suñu li nekk dañ koy bokk ndey bokk ñëpp ñu doon benn moo tax ñëpp ñëw gis nañ tey li nga xamante ne moom la waa Rëbës def ñu lay laaj lan moo ci sa xalaat. waaw di am mbégte en tant que doomu Rëbës bi nga xam ne ni Rijal Job bii la fekk ko baax kon bu fekkee dañu nekk si weeru Ramadan Mubarak mu nekk weer boo xam ne ñun senegal euh, majorité bi ay jullit lañu te jullit yooyu bu ñu wooree war dog am na dañuy dañuy soxla ay lu ñuy dogee. kon lu melni initiative bu rafet bi la grande ASC l'ASC Khandalou de Rebeuss initier lu melni ni à travers seen commission culturelle buñ ma saisiré waruñu ma saisir sax waaye mako wara war sama bop dem waaye dafa fekk président de la république Macky Sall dénk ma lo xamné ni jot amatumako ko ñi nga xamné dama bokk ak ñom ñu nak samay xarit samay rak ñu jotalil mako wax mako lepp luma lu da lépp lu ma téye dama koy bàyyi ñëw fekk si leen ànd ak ñoom si loolu ni mu ko waxee effectivement jot nañ ci def dara waaye lépp luñ ci def rek xeb nañ ko di wax ni war mbir mi du yem sax si lii man lii laa bëgg parce que aw ma leneen lu dul rëbës aw ma leneen lu dul Rijal Diop di gën a dénkaat sama bopp waa Rijal Diop di gën a dénkaat sama bopp waa rëbës ak waa Dakar Plateau di wax ni tey xandaalu bi nga xam ne ne moo waral lii ba may yegg si fii tey waxtaan naa ak la président de l'ASC xandaalu sama doomu ndey sama ami d'enfance muy Pape Touré tey ma taxaw ak Fara ñoom ñi nga xam ne ni sama rakk la sës si man aussi waaye nekk koo xam ne aussi gis naa taxawaayam tey jii Reubeuss TV bañ koy mettre en place di ko xalaat man ak moom bokk nañ si ñu ko xalaat kon Fara bu yeggee tey il le mérite te war nañ ko jàppale. waaye di wax ne moom li muy liggéeyal ASC bi di vulgariser seeni affaire loolu cëram la waaye ñun ñi nekk ay doomu Rëbës nekk ay doomu Dakar Plateau yàlla cëral nañu waaye loolu dinañ ko bokk ak askan bi moo tax dinaa jox rendez-vous le président de l'ASC Xandaalu ak Fara ak la commission culturelle fii nga xam ne ni président foofu la ma teg muy CICES. tey jii boo xoolee lii dafa rafet ASC bi buy fubal soxla na mayo ASC bi soxla na ballon ASC bi soxla na leneen loolu incha allah dinañ ci jàppale ASC kon di wax ne tey weeru koor maa ngi ak ñëpp di bal ñëpp ak di leen wax ni salif bii wute nag saalif bu démb di leen wax ni tey de ñëw naa sama bopp ñëw naa len sama bopp looloon ma jàppale xeb ko sama rakk yaa ngi nii ñoom Souleymane si ñoom ñu ñëpp tey ji lii ku gis lii sa xol war sedd tey dama wax ni Rebus, xol len quartier bi numu mel man ma ngi dekk fan tay fenen fo xamne duma fi yewo waaye samay wajur fi la yewo tay tey ku dugg Rijal job tay war nga xamne ni li war nañ ko defar jambour du ñew defar rebeus jambour du joge fenen waaye ñun ñuy dekk secteur bi tay war nañu laabiir joxante loxo dafar suñu secteur bi parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire dans ce Dakar Plateau. waaw ah bon man tout d'abord damay saluer si acte bu mu def parce que nga nek responsable sokogn nga gis ay ndaw yo xam ñi ngi yëngu ci ASC lu melni ni ASC Xandaalu euh, ci mel commission culturelle bi ñu am activité ñëw wax la ko neela ah ñu la dañu wara ñew ñëw sa pour joxe ay ndagu nga baye li nga def yépp yëkkati sa alal yëkkati say euh, euh, moyen teg ko suñu loxo nee ñu sama participation mi ngi nii li nga xam ne mooy si bés bi ñu lool dañ koy rafetlu di ko xaar tam si képp koo xam ne responsable nga nekk si gox bi di ko koy xaar tam nga def lu mel nii. li daal ñun lu mu la ci mën a wax ne mooy am nañ ci contentement boo xam ne ñu wax fu muy commencé ak fu muy yem di rafetlu nag teewaayam bu wér a wér gis nañu ni mu si jàppee ak yan taxawaay la ci am loolu daal laa amoon lu mu ciy wax. Reubeuss mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.